doon ci waxtaan te doon maanaam lan mooy sunna xëy na sax danañ leeral buñ ci jàllee lan mooy biddaa tamit ndax dañuy seet lu bëree bëri rek ñi nga xamante ni mooy kuréel yi nga xam ñooy wote seen bopp wahabiya ñaari lépp loo xamante ni suuf yu ne yi def nañ ko rek ñi nga xam dañuy wote seen bopp di askane seen bopp ci mutasawwifa yi lépp luñ def rek dañ leen di tuddee ne yéen moom buñ gisee loola yonente mosu koo def wala gisuñu ci saxaaba yi ko def ñoom dañuy tuddee suufi yu ne ahlul bidaa di wax ne ñoom kat dañoo sos ci diine loo xamante ni bokku ci kon ñoom ay mushrikoon lañ suñu faatoo dañuy dem sawara te loolu sax boo xoolee daanaka ñàkk xam dëgg moo ko waral ndax fi mu toll nii yonente bi sallallahu alayhi wa ci boppam buñ waxee laaj lan mooy sunna dañuy wax ne sunna kat mooy lépp loo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ko baa muy loo xamante ni daf koo jëf wala loo xamante ni dañ koo jëf ci kanamam mu saxal ko loolu sax indi woon nañ ci jotaay boo xamante ni leeral nañ ni ni nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la nangoo nit nit sos loo xamante ni bokkul ci diina ñëw ci moom wax ko ko mu daal di koy saxal mu nekk sunna suñuy def am na ci saxaaba yoo xamante ni def nañ ko bëri na ndax indi woon nañ ci leeral yu bëree bëri te fekkee ne sunna mooy lépp lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu def wala lépp lu saxal kon dañuy gis ne tamit kon yonente bi saxal na ne nit mën naa def lu wuute ak moom lu mu def tawtee boobaa loola nekk bokk ci diine ndax yi nga xamante ni moom mooy euh, maanaam ngir yi nga xamante ni ñëw na ginnaaw bi yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko foon bàyyi ko foon xam-xami diine yi nga xamante ni ñoom ñi nga xamante ni ñooy waxaabi yu ne tamit ñoom reconnaître nañ ne ci diine la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu bàyyiwu ko fi woon noonu waaw nii ñu ko organisé tërëree ko nii maanaam loolu yonent bi sallallahu alayhi bàyyiwu ko fi noonu kon diine buñ am na yoo xamante ni mën nañ koo sos mu nekk biddaa waaye ci luxa maanaam mën nañ ko tuddee biddaa waaye nag mën nañu wax ne biddaa bu rafet la ndax biddaa bu rafet dafa am biddaa bu ñaaw am waaw ñoom yi nga xamante ñoom ñooy ñoo askanoo ci Muhammad ibnu Abdul Wahab te mooy wahaabi yu nay ñoom ibnu Taymiya mi ñu topp sax ay idiyam ak i xalaatam sax daanaka moom loolu saxal na ko saxal na ne biddaa am na bu rafet am na it boo xamante ni dafa ñaaw waaye ñoom seeni wax moom boo ci xoolee toujours ñoom dañuy wax ne rek biddaa yëpp dafa dafa dafa ñaaw amul benn bu rafet te ñoom seen kilifa. nga xam moom moom mooy seenub yonante ci ñoom moom saxal na ne biddaa moom am na boo xamante ne dafa rafet am na boo xam sax waajib la moom wax na ko am na boo xam moom dafa ñaaw te ne lépp loo xamante ni dëppoo na ci alxuraan ak sunna ah julli ci soo baa rafet la waaye lu wuuteeg alxuraan ak sunna wu wuuteeg jullit ñëpp soo baa doo day nekk biddaa boo xamante bu ñaaw lay doon kon ñoom seen kilifa njëkk naa saxal loolu waaye ñoom daanaka ñoom daal dañ koy faral di wad weddi lu bëree bëri ñaari bi tamit mooy waxaabi yu na dafa am buñ leen di diglu léegi-léegi ñu ci bëri li ñuy xool ci ñoom mooy côté bi ñu wuutee ak li nga xamante ne mooy suuf yu ne yi waaye waxaabi yu na dafa am problème mu pas-pas maanaam aqida tawxiid bu seet wicc bu nañ ñi ñoom problème boobu dañ ko am boo leen di diglu nag ci seeni wax maanaam te am ràññee bu baax loolu da koy gis nii ñoom nag boo xoolee day mel ne ñaari kuréel daa am ñoo xamante ni dañoo dugg ci waxaabi bi la waaye ñàkk xam a tax ñu dugg ci xëy na bëgg dugg dund alxuraan ak sunna ak bëgg lu baax moo leen dugal ci loolu tax ñu dégg leen ñuy wax alxuraan ak sunna alxuraan ak sunna képp rek seen xol namm yàlla namm tamit dund rek alxuraan ak sunna képp ñoo la tax nag ñu daal di dugg ci waxaabi yo waaye taxul nag dëgg-dëgg ñoo xam lan mooy waxaabi am na ku ñuy wax docteur Yaasir Xaadi moom ab waxaabi yu ne woon waaye nag daf ko daf koo bàyyi te moom bi muy leeral maanaam waxaabi yu na seenu jaar-jaar ak niñ lay liñ lay ni maanaam brainwash sa kii sa sa sa sam xel maanaam dafa doy war mom bi mu ba gis ne li nak mom depo wut alquran mom dafa caa daal di genn mom waaw ta loolu ay étape in na ci ñetti étape yo xamanteni étape bu di ak wayam ak fa ñuy tolloo yow ki nga xam day dogu a dugg nag ci mbir mi mom du ci xam dara ndax étape bu soufé bi ci lañ nekk ak mom fiñ toll ni eggul ci étape bu kawé bi nga xamanteni moy day dem ba egg ci mamadou ibnu Abdul Wahab maanaam ci gëm-gëm yooyu nga xam fa la eggoon ñaari gëm-gëm yooyu ñi ci egg noonu fi na ñu tëral nit rend ko du dara ci ñoom ndax boo xoolee euh, dëkk yi nga xamante ni am nañ fa doole nga xamante ni ñoom mbir mi daal nekk na seen loo am nañ fa doole lool maanaam képp koy gis ngay tuddee sa bopp suuf mu tasayu fona di askara sa bopp ci suufi suufisam su boobaa moom dañ lay rey comme ni ñuy def xari tabaski yi ñoom noonu lañ lay def fi mu nii te boo xoolee loolu dafa bokk ci njuumte lu bëree bari tey feeñ ci seeni mbir mooy deret moom daal dafa mel dafa bokk ci seenu yoon tuuru deret yi ñi nga xamante ni mooy nit yàlla yi tuuru deret yi ñi nga xam ne dañuy wax laa ilaha illallah te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nee na shabaabul muslimina fusuuqun wa xitaaluhum kufrun xeex ak jullit ñi maanaam ŋàññi ab jullit sa moroom jullit loolu ak saay-saay la waaye nag xita ak ñoom ak weddi yàlla la ñoom nag boo xoolee dafa mel ni ñaar yooyu jël nañ ko def ko muy armu ci ñoom bu baax a baax di ko jëfandikoo te loolu nag commencé wut léegi waaye ma nga commencé ca jamono yi Muhammad ibn Abdul Wahab te Muhammad ibn Abdul Wahab boo xoolee ci jamonoom nee nañ am na benn koo xamante ni ab gumba la <coughs> gumba gi dafa nodd ba pare daal di ciy teg li nga xamante mooy salaatu ala nabi te loolu boo xoolee ci imaamu Shafii yi moom daf koy wéral am na sax da ko ciy tegtaloo waaye gumba gi bi mu noddee ba pare teg ci li nga xamante ni moom mooy. salatu ala nabi Muhammad ibnu Abdul Wahab da ko nako yow da nga sos ci diine lu ci bokkut dañoo wax ne da ko ray da ko rendi ni comme ni ñi rendi xar ni rek noonu la ko rendé kon ñom lolu yag na ci seenu yoon ndax euh, nit ñi di len rendi comme ni ñi rendee xar yëkëti le yobul len fu kawé bu mu wax le ñu daar ak toj seen bop yi loolu moom dafa nekk ci seenu yoon te lolu manam du luñ len day tuumal ni mais mu ngi ci internet bi ndax ñom ñoko ci duggal te loolu lépp dañ koy def ngir tiital nit ñi ak jàqloo leen bu ko defee ñëpp dal di ànd ñoom ci seen gëm-gëm bo ak seen bëgg-bëgg te loolu yoon tamit nag waxoon na ko ci ay jamono waxoon na nee na maanaam alerté woon na ci ñépp xamal leen ne jamono ngi ñëw dana am nit ñoo xam ne day ñëw ci mujjug jamono waaye ñooñu buñ jàngi alxuraan ak yéen ngeen da ngeen seen alxuraan bu maanaam jullee ngeen xeeb seen julli bu ñu woorandoog yéen yéen da ngeen xeeb seen bopp lu ñu defandoog yéen rek ci diye yéen da ngeen seen bopp ndax da ngeen di jàpp ñoom ñoo leen ko gën a xaman te fekk alxuraan ji ñuy wax ak aaya ñuy wax maanaam jéggiwul seen pud yi te ci diine loo xamante ni mu ngi mel ni rek fett gi nga xamante ni euh, maanaam danay génn ci diine comme ni nga xam ne fett gi boo ko sànnee noonu muy duggee ci biir rab bi ba génn ci biti ñoom loolu la ñuy génne ci diine te waxaabiya li muy yàq ci diine boo xoolee maanaam golo sax du ko yàq ci biiru tool waaw te mosoo gis waxaabiya bu am ak jafe-jafe ab chrétien mooy ñi nga xam gëmuñu yàlla wala maanaam juus maam christianité wala juus mooy yahud wala nasraan foo leen gisee rek seen moroomi jullit képp lañ amal problème moo tax mooy ñi nga xamante ne dañuy wax laa ilaha illallah Sëriñ Tuubaa day wax ne falaa tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah noonu képp koo xamante ni gis ngeen ko gémmiña mu ciy wax laa ilaha illa allah waaye ñoom dafa mel ni mosoo gis wahaabiya boo xam ne daan tuubal na diw sàngam moo xamante ni dama ko fekkoon mu nekk ab yéefar ma tuubal ko dugal ko ci islaam waaw ñoom daal dañuy fekk ñi nga xam dañuy wax laa ilaha illallah di tudd baati seede yi wa in taabu wa aqaamu salaata wa aatu zakaata wa ixwaanukum fi diini suñ borom dafa ne nit ñi kat buñ tuubee nangoo taxawal julli di joxe asaka da nga leen jàppee ñuy seen mbokk ci diine yow fi mu toll nii mën nga leen a jàppee ay mbokk ci diine waaye ñoom jàppuñu la sax ngay ab mbokk ci diine yow bi yëfar leen a jàppee fi mu toll man yow keneen ak keneen ñëpp la ñu jàppee fi mu toll nii bu ñu wuuteeg ñoom ci gis-gis rek wala ci pas-pas rek fay saase rek ñun ay yéefal lañ tey daganal nañ suñuy deret fi mu toll nii ndax dëkk yi am doole yëpp noonu la ko demee xëy na nag fii ci senegal moom amaguñ fi doole waaye nag waxtuñ fi amee doole foofu donc fa lañ jëm ak ndax fi mu toll nii ñoom problème pas-pas lañ am yàlla boo xoolee sax bàyyiwuñ suñu borom ndax suñu borom egg nañ ci ni di la xamal ne suñu borom dafa ami loxo ami tànk. am loxo am tànk am kanam am bopp am di la melal yàlla nga xam buñ la melalee ba bàyyi yow jëmmi doomu aadama rek ngay gis fi mu toll nii waaw jëmmi doomu aadama rek ngay gis te loolu dara gënu koo nekk njumte ci wàllum pas-pas egg nañ ci sax ne yàlla nii mu nii ngay toogee ci sab siis noonu la toogee ci maanaam kursiyum gi nga toogee sab nii rek maanaam noonu la toogee ca kursiyum sàkkal yàlla ab bërëb te suñ borom maanaam mënoo ko sàkkal bërëb ndax boo ko sàkkalee ab bërëb danga koo tënk ci barab barab te yàlla moo sàkk bërëb te dafay nekkoon avant bërëb di am kon kooku mënoo ko tënk ci benn barab ndax moo sàkk bërëb kon avant bërëb di am kon fi yàlla nekkoon waaye gis nga ñoom kon dañuy sàkkal yàlla benn bërëb foo xam fa lay nekk ñaare bay tamit fi mu nii am na ci ñoom wax nañ ne sax am na ci koo xam ne boo ko joxee bik ak fooy mën na laa di seeneel yàlla cëram yëpp ni mu mel euh, mën na la koo di seeneel xam nga loolu lépp ay njuum tey pas-pas la te loolu day feeñ ci ñoom du bëree bëree bëri léegi nag lan moo war jullit ñi ci ñoom ñu def ko mooy fexe bay leeral lënt-lënt yi ndax boo xoolee daanaka anam gu mel noonu dëgg la am na ñoo xam danañ di jàngale di xamal xamle lënt-lënt yi nga xamante ñoom indi nañ ko ci diine ndax boo xoolee ibnu taymiya ba mu weesoo ba léegi toujours rek boroom xam-xam yi ñu ngi bind di tontu di wax ci ibnu taymiya ak xalaat yi mu dugal ci diine te bokkul sax ci diine waaw kon ñi nga xam dañ dañuy doog dugg ku ci mën a dimbali kenn mu génn ci nga dimbali ko waaye nag képp koo xamante ni dugg ci it nga xamal ko la nga xamante ni moom mooy mbir ma ndax ki ciy doog dugg nii. te alxuraan na sunna dong yitteel ko moom du mas a xam li li li xew waaye nag lu mu gën a dox ci mbir ma gën caa gën caa am yitte danañ egg ak moom foo xamante ni du mujjee fenn fu takk ay bomb rey moromi jullitam ndax loolu am na ba tay képp koo xamante daal suuf yi nga wala képp nga xam ab jullit nga ñoom déclaré na la fii ci kaw suuf te loolu nag yow mi ciy doog a dugg doog xam mukk waaye ña ca kaw moom xam nañ loolu te ay intérêt bàyyi foofu ndax maanaam maanaam politique la fi noonu ni maanaam wahaabiya du doon loo xamante ne dangay ñëw nii rek dégg leen ñuy wax ni rek nga xam leen nii wala ñu xamal la ko ci benn jotaay téere da nga koy da leen di jàng waaw mu ngi noonu ndax fin mu nii fa nga xam fa lañ soqeekoo te mooy maanaam nga xam mooy seen maam di seen baay te muy Arabie Saoudi ñoom boo xoolee ñoom ni ñu tuddee seen bopp sax rek maanaam seeni mbir dëkk bi ni ko tuddee sax dafa laal politique. mamlak mamlakatul arabiya saoudia waaw te fi ne boo xoolee yeneen dëkk yi nga xam dëkk jullit lañ fi nan lu ci ëpp dañuy wax jumhuriyatul islam nga xam te dañ tur seeni tur dëkk dañ ciy boole islam waaye boo demee ci arabi saoudia moom day wax ne mamlakatul arabiya saoudia nga xam ñoom dañoo lëkkaloo ak maanaam ali saoud fi mu toll nii kon ñoom seen mbir moom dafa laal politique bu baax a baax te politique yëpp la boo xoolee anglais yi nii fi mu Angleterre bokk na ci ki leen jàppale ba seen lii ñu taxawal taxaw waaw te nga xamante ni nag fa seen maanaam seen yonante mën nañ ko tuddee seen yonante ndax moom lañ gën a gëm ci képp ku moom yonante bi sallallahu alayhi wa sax boo waxoon dara maanaam ibnu taymi wax dara wala muhammad ibnu abdul wahab wax dara subaa moom la ñuy gën a jàpp ci la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax <coughs> ndax yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ne foofu seen kilifa gi fa la fa fala fa fala feeñee fa la fa la jugee te mooy Muhammad ibnu Abdul ma nga feeñee Najd Najd fa la feeñee te waxoon na nee na hunaaka yatlu xarnu seytaan foofee fa maanaam seytaan di feeñee xarnu seytaan fa lay feeñee xarnu seytaan nag bi ko bi sallallahu alayhi wa sallam wax maanaam ulama yi xamuñu woon dëgg-dëgg lan la ci jublu moo tax dañ ko doon moomale rek mu Musaylamatul Kazzab waaye ulama borom xam-xam yi nga xam ne ñooy yu mujj yi ñoom dañuy wax ne mu fitnay Musaylamatul Kazzab fitnay Wahaabiya moo ko ëpp doole moo ko raw fitnay Muhammad ibnu Abdul Wahab moo ko moo ko ëpp doole fuuf te boo ko xoolee gis ko fentooni bala ngaa gëm ñoom xoolal ñoom liñ def ci histoire fan lañ jaar ak seeni moromu jullit waaw fi na yow bo bo ñewon fekk leen ni ñu tok man nga leen def ñu man nga leen jappé ay julit man nga nangu sax ñu jité la waye yow fi na yow jappé wuñ la ngay ab ab julit wa ndax yow yaakaar ni fi na bo faato fi na musriko na yow fi na directement sawara nga jëm tayit ko tuddu ci magu ñi nga xamanteni ñoy ni ñu bax ñi ban nañ ko saga fi ton te lool du dara ci ñom lool fi na jafé ci wala ci ñom wa fi non li fek mëno go wax wax ju ñaaw mëno xass ni ñu bax ñi dëkkal leen fu bon yow fi ne mënagoo tuddee sa bopp dëgg-dëgg waxaabiya ngir nga tuddee sa bopp dëgg-dëgg waxaabiya ñu mën la ko nangul ñoom mooy da ngay mën a xas sa morom jullit da ngay mën a wax wax kàddu yu ñaaw kàddu yu bon jëmale ko ci gaa yu baax yi. Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul boo ko tuddee mën nañ ko wax lu ñaaw man gis naa ko ci bind xam daanaka man ba ma ko gisee sama fidu fi ne dafa rëcc fi mu toll nii waaw te loolu ñoom defuñu ko muy dara man dafa defuñu ko muy dara. surtout Serigne Touba ni mu liggéeyalee yàlla liggéeyalee ko Serigne yonent bi sallallahu alayhi ba yonent bi jaral ko mu gane si Serigne Touba diiru 15 jours nekk ak moom ci néeg boobu nga xam ne fa moom la ñu tuddee baytu rasul yonent bi ñëw fekk ko fa gane ko fa nekk ak lu toll 15 jours yow kooku nga ñëw ne maanaam tupp sunna toppul alxuraan te yow ci nga ci nga eh, maanaam daal léegi-léegi daal doo xam lu doon daal Cheikh Ahmad Tidiane fii nag boo ko tuddee mën nañ ko mën nañ ko wax lu mën nañ ko wax lu ñaaw waaw Cheikh Abdou Xayr Cheikh Abdou Xaadir Jeylaani boo ko tuddee mën nañ ko wax lu ñaaw waaw maanaam maanaam Imaamul Xasaali boo ko tuddee mën nañ ko wax lu ñaaw Baye Niass boo tuddee mën nañ ko wax lu ñaaw waaw mboolem nit ñi Cheikh Omar Fuuti yu Taal tuddee mën nañ ko wax lu ñaaw <coughs> mboolem nit ñu baax ñi nga xam nekk nañ fi rek koo ci tudd mën nañ ko wax lu ñaaw waaw defuñu ko muy dara nag waaw. ndax ñoom dañoo jàpp ne ndaa am na ko ma gis sax mu ne tudd tarixa ni tarixa boobu maanaam tarixa maanaam daal wax lu ñaaw daal doy na waaye ñun suñ jotaay bi di jàll ñun leeraloon nañ ne kon lan mooy na ci lañ nekk di ko leeral ndax loolu day am solo ndax bu xamee lan mooy na xam lan mooy Euh, bida su boba nit ñi da nga mëna sétantal xamé rañ ndax wax ju wax ju moy bu ñu xamé lan moy sunna xam lan moy bida rek ñom dootuñ la mëna réral ndax lu bëree bëri lu ñuy tuddé bida fi nekul bida lu maam doon xeyna mëna nek bida nekk biddaa ci loxaw ya waye nak su boba bida bu rafet lay doon wa ni ko non tamit lu ñuy wax sunna diko tuddé sunna ñom maam nekul sunna masala lim la ci jox misaal mooy ñoom dañuy wax ne jaam bi maanaam moo sàkk yàlla moo sàkk jaam bi waaye nag jaam bee sàkk ay jëfam te loolu pas-pasu ahlu sunna wal jamaa dañ koy dàq moo tax ma ne ñoom li ñuy tuddee sunna dëgg-dëgg ñoom nekkul sunna waaw ndax yàlla waa ahlu wal jamaa ñoom dañuy saxal ne yàlla moo sàkk jaam bi waaye sàkk nag ay jëfam waaye ñoom dañuy wax ne yàlla ci boppam moo sàkk jaam bi waaye jaam bee sàkk ay jëfam te loolu njuumtey pas-pas la fi mu toll nii moo tax ñu bëri dañuy xool rek wet gi nga xamante ni fi la ñu wuutee ak mu tasawifu ne waaye léeg-léeg sax duñu bàyyi xel wet gi nga xamante ni dañ caa wuutee ak ñoom ci wàllu pas-pas aqida maanaam jafe-jafe aqida dëgg lañ am fi mu toll nii waaw moo tax ñoom boo xoolee ñoom victime sax lañ doon fi mu toll nii mooy dañoo jël idée nit ci maanaam gis-gisam ci diine muy idée ibnu taymiya ci système ci diine te gis-gis yooyu du diine maanaam dëppwut ak islaam nii waaw mu ngi noonu moo tax fi nag ba mu jàllee ba léegi ulama yi ba léegi ñu ngi bind di wax ci ñoom waaw moo tax mu ngi noonu doy na war kon jotaay bi jàll indi woon nañ ne lan mooy sunna saxal ne sunna moom mooy lépp lu yonante bi sallallahu alayhi wa wax baalum jëf wala mu saxal ko kon bu yonante bi saxalee mu nekk ci kaw suuf di dund ñuy def lu wuute ak moom na koy defee te téyewul mu saxal ko mu bokk ci sunna kon yonent bi saxal na ne maanaam lépp loo xamante ni tamit nit def na ko te bokkul te bokkut la ma def na ko natt ci alxuraan ak sunna bu dëppoo alxuraan ak sunna rek loola ci diine la bokk. waaye nag bu dëppoote alxuraan ak sunna amul benn ci silaay soobaa loolu lay moom moom la ñuy askale ci biddaa indi woon nañ ci. ci jamono yi nga xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy dund ay misaal indi nañ ci saxaaba yi ay ay ay ay kii yu ci jataay bi jàll kon dañuy ñëw ci jamono yi nga xam ne léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jugee na ba saxaaba yi dong nekk fi saxaaba yi yonent bi mu leen ginnaaw xam nga moom mën nañ laaxal ne la waaw léegi yonent bi moom xam na war rafet ndax léegi bi saxaaba yi nekkee ñun nangu nañ ne doon nañ doon nañ sos ci kanamam waaye nag moom comme xam na lii lu rafet la moom daf ko daan saxal boole ko ci sunna mu nekk sunna daal mu saxal ko waaye nag léegi yonte bi sallallahu alayhi wasallam jugee na fi waaye léegi yonte bi kon jugee na fi léegi na téewu saxaaba yi ñu ngi sos ba léegi ci loo xamante ni ci diine la bokk maanaam comme ñoom ibnu taymi ni muy firee li nga xam mooy sunnatu tarke mooy lépp loo xam yonte daf ko bàyyi wala def ko képp koo xam ne def nga ko def nga bidaa mooy lépp lu yonte bi musta def képp ku ko def rek bidaa nga def bu dee loolu la saxaaba yi ñoom diggiwuñu woon noonu diine déggewuñu woon noonu diine ndax léegi euh, maanaam loolu leeraloon nañ ci jamono yi bi nga xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy dund ñi ko def ci saxaaba yi ni mu bëree te yonent mus leen a wax ne li ngeen def biddaa maam naa ngi ma ki naa waaye nag def koo saxal sax mu nekk diine ndax waxoon naa ci ne Seydina Bilal ibnu Rabah daan na def saabu jàppoo ba pare dafay julli ñaar ak te loolu yonent mus koo def te it ko koo digal ok léegi ba mu def na ko ba suñ borom fay ko ci maanaam aljana ba pare yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom doog koy xamal ok kon euh, ñoom saxaaba yi déggiwuñ woon noonu sunna déggiwuñ woon noonu tamit alquran déggiwuñ woon noonu tamit diine yàlla ji waaw ah, diine dafa yaatu waaye xatut kon ñu dikk ci li nga xam moom mooy jamono yi xam saxaaba yi ñoom ñu ngi dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkatu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni jugge na fi gis nañ ne ñu bari ci arab yi dañoo murtat yi nga xam dañ doon dugg ci doog dugg ci islam te seen pas-pas degeerugut ñu ci bari bari dañoo murtat gin ci islam nangootu joxe azaka, waaye seydna abubakar gis nañ mu sos loo xamanteni def ci diine loo xam ne yonte bi salaa sallam mus koo def te loolu lu rafet la lu baax la ndax azaka ak julli kenn mun leen te loola Eh, maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne maanaam eh, nit ki maam saa bu ñu xeexee moom ba mu nangu laa ilaha illallah nangu tudd baati seede yi soo baa alalam ak deretam maanaam dafa araam waaye ginnaaw bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam jigéen a fi mu araab yi biñ murtadee Seydina Bakar Siddiq xeex na ak ñoo xamante ni nangu nañu wax baati laa ilaha illallah nangu nañu tudd maanaam baati seede yi. waaye nag dañoo nanguut a joxe azaka ne nag azaka ak li nga xam mooy julli kenn mun leen tàqale ndax lislaam doone nu'minu bi baax baadin wa nakfuru bi baax baadin loolu amul ci islaam islaam moom dangay jël lépp jàpp ko moom waaye dafa xeex ak ñoom ba delloo si leen ci ñu nangoo topp suñ borom ndax al azaka al xaqi suñ borom la moo tax àqi suñ borom jooju képp ko nangu ta jox da ngaa war a xeex moom ba delloo si waat ko ci ci kii bi ci yoon moo tax fi mu Seydina Bakrin Siddiq daal di xeex ak ñoom ba delloo si wàll ñu nangu di joxe asaka comme ni nga xam noonu lañ ko daan joxee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu yonent bi mos koo def yonent mus mosut xeex ak koo xamante ni dafa wax laa ilaha illallah te sax maanaam saxaaba bi nga xam ne daf doon bi ñuy xeex ca xare ba dafa dem ba jàpp yéefar ba jëkk bëgg ko rey yéefar bi daal tudd baati séere yi mun ne ko da ngaa ragal dee rek daal di koy rey. bi mu dikkee wax ko yonent bu sallallahu alayhi wasallam dana ko nan ngay def sa borom boo eggee ca kanam suñ borom baati laa ilaha illa yi mu tudd baati seede yi mu sodd nii tudd nii seede ne yal rek mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul moom seede ne man kat ndawul yàlla lool nan ngay def ak moom ca kanam suñ borom nga xam te ne loolu masaan am moom yonent bi daf ci daan mer lool waaw mais li li Abu Bakr Siddiq def bu ko defutoon ci ginnaw yantu bi sallallahu alaihi wasallam suba boobaa ñu bari bari ci arab yi murtad murtad. ndax ginnaw yantu bi sallallahu alaihi wasallam arab yi daanaka ñëpp murtat ñi ci desoon daanaka da daanaka bo xoy drapo yim tak sax yebal leen ci ay barab ngir ñu dellu su wala ci lislaam man na fukki drapo ak ñaar wala fukki drapo ak ñet nga xamanteni ni kon da ngay gis ni arab yi ci bari rek daanaka murtadon nañ ñu lànk ne dootuñ joxate asaka mu ne nag loolu moom wallahi law manauni iqalan kaanu yuadduunahu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la qaataltuhu ala mani bu ngeen ma nanguwut a jox guum gu ngeen daan jox yonte bi sallallahu alayhi wasallam sax dinaa xeex ak yéen ba ngeen dellu siwaat ci nangu koo joxe te loolu bu ko bu ko Seydina Bakrin defutoon dana doy waar lool ndax dana bëri ñu génn ci diini ji moo tax xalaat boobu bi mu ko amee Seydina Omar daf ko wax ne ko nag ngay xeex ak ñoo xamante ni ñoom wax nañ laa ilaha illallah ah mu ne ko day bi mu gisee ci saxaaba yi xaw a wuuteeg moom ci gis-gisu xeex ak ñi nga xam dañoo nangu te joxe asaka bañ nangoo joxe asaka su boobaa mu ne leen léegi de xalaat bii ngeen am bis bu ngeen ci dellu ginnaaw de ñeneen ci julli ñi danañ danañ bàyyi na bàyyi joxe asaka danañ fekk si ñee waaye Seydina Omar bi mu gisee ne kat Seydina Bakri mii moo ne ci dëgg mu a ko ah kon nag nañ xeex ba delloo si waat leen te bañ leen songee xeex ak ñoom. Ah, suñ borom dafa def ñu am ca ngañaay ba ñoom ñu nanguwaare dikk di joxe azaka ndax azaka azaka xaqi suñ borom la dañ ko war a génne kon loolu luñ sos la ci diine ci ginnaaw yonte bi sallallahu alayhi wa sallam niki noonu tamit bi fi Seydina Bakar Siddiq jugee Seydina Omar daal di dikk Seydina tamit na ci diine loo xamante ni yonte bi sallallahu alayhi wa koo def mosu koo digle ndax sax na ci sunna yonte bi sallallahu alayhi wasallam musta wesu fukki raka ak ñet ci nafile mais sayna omar mom dik na ci waxtu koor fekk julli ñi di nafile ki taxaw fee di julli ke taxaw fee di julli ke taxaw fee di julli ke taxaw fee di julli mu ne ndax kat buñ dajale won julli ñepp wutal len imam bo xamanteni mo len di jité ndax lolou gënta maam rafet daa dajale saxaaba yëpp daa di jël maanaam Ubay ibnu Kaab bin def ko muy seen imaam mu di leen jiite ba pare teg ci nag jiite leen ñaar fukki rakka te yonent bi ci ak dundam musta weesu fukki rakka ak ñett mus ko weesu waaye musta ci dundam musta dajale saxaaba yi ci weeru koor di leen jiite maam dajale saxaaba yi nii ci weeru koor di leen ñëw leen di leen jiite ci ay le ci weeru koor loolu yonent mus koo def dëgg la maanaam daan na génn ci weeru koor dem ca jàkk ji di naafile waaye saxaaba yi ñoo ko fa daan fekk mais mosu leen dajale mu daan génn nag dem ca maanaam jàkk ji di naafile saxaaba yi ñëw fekk ko ànd ak moom ci naafile yi te loolu sax daw ko sax léegi-léegi la ko daan def rek génn ci dem ci jàkk ji di naafile bi mu demee sax ba gis ne saxaaba yi ñu ngi ko bëgg saxaal moom daf koo bàyyi ngir bañ leen a sonal waaw waaye ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam Seydina moom moo saxal loolu sag koor bu jotee dañuy dajale wut imaam mu leen di jiite te bi nga xamante ni nga xamante ni noonu la kayfee bi ni nga xam noonu la ko Seydina Omar defee bokkut ni ko bi daan defee kon ñoom ñi nga xam ne dañuy wax lépp lu yonente bi sallallahu alayhi wasallam defut ku ko def def nga biddaa <laughs> te lii nii Seydina def nag. manam moom dig bu fekkoon dafa digge ci l'islam ne lepp lo xam yentou bi def ko rek kep kenn ku ko def rek nga bi daari kon seen ma kon def li kon tamit moom saxal nañu julli lu upp lu yentou bi daan julli ci wéru koor wa ta muy fekk raka ci euh, ak ñett yi nga xam yentou musko wess wees ci naafle mu ñëw def ñaar fukki raka ba pare tek ci nak wutal leen imam kon ñum degge wu ñun ne lepp lu yentou bi defu rek ku ko def rek def nga bi daa loolu ñoom déggiwuñ kon noonu ta bañ ko defé ba pare Seydina Omar dafa wax ne ni'matil bid'atu haasihi lii day biddaa la bu rafet waaw ni'matil bid'atu haasihi lii day biddaa bu rafet rafet la waaye ñoom sax boo xoolee dañ naan ah loolu loolu Seydina Omar daf ko wax rek waaye du biddaa waaye léegi da ngeen gën a xam maanaam Seydina Omar lan mooy bidda da ngeen ko gën a xam lan mooy bidda ak la murul biddaa Seydina Omar ne lii ni'matil bid'atu haasihi ñu ne ah déedéet loolu yoon Seydina Omar daf ko wax waaye du biddaa ah, daa la waaye biddaatun xasana la voilà kon ñoom weddi nañ sax <laughs> maanaam waxuma la ñoom ñu wedd gaay baxaay waaye amirul muminin la mu wax ñoom sax dañu ñëw weddi ko fi mu toll nii waaw kon maanaam léeg-léeg daal doo xam danga naan ñii daal moom dañoo déggul diine xaqiqatan dégguñu ko dañoo jàng ni rek mais dégguñu ko nekk noonu tamit ci Manam xalaat bi nga xamanteni moy dajale kamil alquran def ko ci ben kamil xalaat bobu Seydina Omar mom moko ko njëkk a xalaat te dafku ba mu ko waxee Seydina Abubakar ni Siddiq daf ko nangu and ak mom ci xalaat bobu ta lolu ci ginnaw yantu bi sallallahu alayhi wasallam ci la amé ci ginnaw yantu bi sallallahu alayhi wasallam ci leen dajale alquran def ko ci ben kamil ndax ginnaw bi nga xamanteni manam arab yi murtad nañ Musaylamatul Kazaab ca Yamaama daa di murtad di woote ne moom ab yonente la Seydina Abubakar ni Siddiq daa di yebal ki nga xamante ni moom mooy Xaalid ibnu Walid fekk sax lu ko jiitu njëkk naa yebal ki nga xamante ni mooy maanaam euh, maanaam Ikrima ibnu Abi Jahlin njëkk na ko yebal ba Ikrima demee Euh, Musaylimatul Kazzab daal di koy gañe mu daal di Seydina Abubakar Siddiq daal di yebal Xaalid ibnu Walid ca Yamaama pour mu dem daal di xeex ak ki nga xamante ni moom mooy Musaylimatul Kazzab fekk Musaylimatul Kazzab moom weddi woote ak yonente loolay xaw weddi nay woote ak yonente waaw ñooñu nag maanaam Musaylima bi mu yëgee ne Seydina Abubakar yebal na Xaalid ngir mu ñëw ci moom dafa daal di gaaw daal dajale ab armée boo xam daan toll na ci ñeent fukki junni nit ngir ñu jàkkaarloo Xaalid Xaalid bi ñëwee gaaral na Musaylama Kazaab jox ko buntu na ko gée maanaam soo nangoo dellu siwaat ci mbooloom jullit mi nangoo seet na yàll rek mooy yàlla kenn du yàlla ku dul moom seet Muhammad xam sallallahu alayhi wa sallam soo baa ñun mën nañ laa jiital mën nañ laa baal duñ la def dara waaye boobu Musaylama dafa bañ ne moom du dellu ginnaaw bi nga xamante ni ñëw nañ ñaari armée yi jàkkaarloo keroog xeex nañ xeex bu tar boo xamante ni julli ñu wax ne ne mosuñoo gis xeex bu taree noonu ndax keroog ñi ànd ak Musaa wa kazaab dañoo gëm ne kii ab yonent bi yàlla la ndax daf leen wax ne leen képp ku dee ci yéen aljana rek direct fa nga jëm ni nga xamante ni julli ñi noonu lañ daan noonu lañ daan xeexee nga xamante ni ku ciy génn sa kër dangay am pas-pasu maanaam doo dellusiwaat waaw ndax yow gëm nga ne ci dëgg nga nekk te soo boo faatoo yaa ngi dajanteeg rabbu samaawaati wal ardi te su boobaa mu teral la ci teraangam yu màgg ya ñoom dañoo gëmoon ne mu saylam mi ab yonent bi yàlla la nga xam keroog xeexam ko doon xaru la ñu xeex ni waaw moo tax keroog yiisaa mu saylama gañe yiisaa julli ñi gañe nga xam ci njëlbeen gi sax dàq nañ julli ñi ba julli ñi daw waaw ba keroog maanaam ku ñuy wax maanaam Salim mu ngi wax ci kaw ak Abu Xunayfa di wax ne yéen jullit ñi tey ngeen a rafetal alxuraan ci maanaam ci ay jëf te bañ koo rafetal rek ci aw ñàngin Zeyd ibn Xattaab daal di wax ne man day fas yéene naa daal di wax ne yéen jullit ñi tey ngeen a bàyyi lu jug rek ngeen daw lu jug ngeen daw waaye nag fas yéene naa du ma waxate kenn lu dul ne mbooloo mi ànd ak Musaylama dañ leen dàq bañ daw wala man dañ maa rey suñ ma reyee nag su ma demee ci kanam suñ borom dinaa xam la ma koy wax waaw daa di maanaam Xuzayfa daa di wax ne yéen jullit ñi rafetal leen alquran ci ay jifin te bañ rafetal te bañ ko yem ci jàng mi nii rek mu doon ay ay ay kàddu yoo xamante ni kàddu yu yu yu soññewaat la ci jullit ñi keroog ci la Xaalid ibnu Walid daa di jug yeesaa taq daa di gis ne nag ngaat songaat maanaam Musaylama song mu tar moo xam ne keroog maanaam ginnaaw bi xeex bi jàll bi ñu ci Abu Bakr di ko leer dañ ko wax ne ko day bu fekkoon ne. nit bu jiitoo ci xare nekk ca kanam loolu mooy sabab mu gaaw a dee kon Xaalid mooy njëkk de ci xare boobu ndax jege na yéefari jege boo xamante ne doy na waar nga xamante ni daal di keroog dañ doon woote yaa Muhammada mu daan woote yaa Muhammada keroog ku génn rek Xaalid faagagal la ku génn ci mboola mu seen kasaar mu faagagal la waaw daal di buur ak doole wuti Musaylama ndax gis na ne li feeg Musaylama mu ngi dund. maanaam xeex bi dakk te xeex bu tar la woon keroog ba buur ak doole wuuti Musaylima Kazaab bi mu ko dóoree xeej bi mu yoroon mu dal ci kenn koo xamante ni moo deen Musaylima Musaylima daal di tiit daal di daw bi ñuy daw di dugg ci kaw ci ñu daal daw dugg ci biir tokkoor ba ngir tëju fa ci la mu maanaam xaari yuuxu julli ñi leen dal leen ci kaw yéefar yi ñëpp dawandoo nga xam dañuy yuuxoo yaa Muhammad daaxu lañ doon woote keroog ca kaw daw yu soo songu yëfar yi Musaylima kazaab ñu daw dugg ci biir tokkoor ba biñ dawee dugg ci biir tokkoor bi léegi maanaam ñu tëj ko te tokkoor bi dafa nekk miir bu kawe boo xamante ni nit mënu koo jéggi waaye keroog ñuy xool pexe yu ñuy def ba mën a dugg ci biir tokkoor bi fi ñuy xoole ay pexe noonu rek saxaa buñ naan Barra ibnu Malik daal di wax ne man nangu naa ngeen sànni ma ci biir tokkoor bi soo ko defee dinaa xeex ñoom ba egg ci bunt ba tijji bunt bi ñu ne ko xanaa da ngay xaru yow fii nga xam ne say noonu doo nga fi nekk nga naan ñu sànni la ci biir tokkoor booy dugg ci bi ñu ne rey mu ne insha allah bu ngeen ma sànni ci biir day dinaa xeex ak ñoom ba rey leen ñoom ñëpp te dinaa tijji bunt bi ñu ne ko accu ah, baax na Barara ibnu Malik ñu sànni ko ci biir tokkoor bi tënga ko sànni ko biir mu dugg ci biir xeex ak mbooloo mu seen kaza moom képp ba egg ca bunt ba tijji bunt bi bi mu tijjee bunt bi maanaam julli ñi dugg ak doole biñ duggee mu daal di tëj bunt bi jël caab ji sàmm sànni ko ca biti ngir bañ benn julli génn maanaam xeex rek baa faatu keroog ñu xeex fa xeex bu tar boo xamante ni ginnaaw bi xeex bi jàllee maanaam bañ rey Musaylimatul Kazzaab ñu ñëw ci Xaalid ne ko maanaam rey na Musaylima fekk mu sonn lool mu dikk ba egg si ci gis ne maanaam rey nañ ko xam keroog wax nañ ne avant ñuy dugg ci tokkoor bi rek lañ rey ci waa Musaylima Kazzaab ñi nga xam ñu ànd ak ñoom li ñu rey ci ñoom rek maanaam mat na juróom-ñaar téeméeri junni nit bi ñu duggee ci biir tokko bi te nañ lim bu toll noonu ci biir juróom-ñaar téeméeri junni reyaat nañ ko ci waaw. saxaaba yi tamit ñàkk nañ ci ñu bëri keroog tamit daanaka bokk na ci kàngam yu alxuraan yi ñi nga xam dañoo mokkal alxuraan ñu faatu ci xare boobu loolu sax moo indi maanaam xalaat bi Seydina Omar ne nañ dajale alxuraan ci benn kaamil ndax bu dul loolu saxaaba yi ñu ngi dee. ñu ngi dem rek ñi mokk alxuraan ñu ngi dem kon naa dem ba alxuraan ji ñi ko mokkul danañ dem te su boobaa nit ñi mën nañoo sos ci alxuraan di wax ne lii ci alxuraan la bokk te fekk bokku ci nañ ko dajale ci benn kaamil waaw mi nga xamante ni ku mokk la alxuraan la doonoon koo xamante ni Abu fa moo ko moom ci jamono yi nga xamante ni dafa nekkoon ab jaamam mu jural ko mu nekk dugg ci lislaam Saalim dafa mokk la alxuraan Saalim ci la faatoo Abu Xusayfa ci la faatoo Zeyd na Xattaab ci la faatoo ñu bëri ci euh, maanaam maanaam kii yi ci lañ faatoo ci kàngami saxaaba yi ci lañ faatoo Seydina bi mu gisee loolu nag ne léegi nag nañ dajale alxuraan ci benn kaamil buñ ko defut fi mu toll ni saxaaba yi ñu ngi dem Seydina ba sax Seydina bi nga ko waxee Seydina Abu Bakr Siddiq ci njëlbéen gi moom d'accord ko woon waaye nag ginnaaw bi d'accord na gis ne lii mooy xalaat bu rafet lool loolu luñ sos la ci diine ndax amutoon ci jamonoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amutoon ci jamono si bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi noonu kon daanaka euh, léegi-léegi kon ñoom bu ñu waxee ne lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defut hmm, kon saxaaba bu ko defaat sa lépp lu yoo xam ne sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defu ko saxaaba yi defuñu ku ko def rek def nga biddaa kon ñoom bëri na loo xamante nii Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam mosu koo def te saxaaba yi ñoom daf nekk ci ginnaaw yonent bi te yonent bi digalu leen ko mosu leen wax ne nañ ko def moo fi jógee te ñoom def nañ ko te loolu ci diya la bokk. loolu leeral naa ci Seydina Omar kon ne maanaam julli gii def ci naafile moom moo ko ci sos te keroog loolu ba mu ko sosee par dafa ni amatil bi daatu haasi te keroog saxaaba yi am nañu fa nekkoon bokk na ci Ibnu Abbas ma nga fa woon Ibnu Mas'ud ma nga fa woon Ibnu Omar mu nga fa woon ali ibn abi talib ñom ñëpp ña nga foon te kenn manam wax ko ne ko li nga def ni bi daala baaxut ko ci diina ji bokk ci ni te ñom ñëpp d'accord ci lo and ci ana ki ni nii kan mo leen gëna a digg alquran kan mo leen digg gëna a digg sunna kon ñom buñ gëmoon ne lepp lu yonante bi defut ku ko def def nga biddaa kon ñom loolu duñ ko def mais ñom diggi wuñ no alquran diggi wuñ no alquran diggi wuñ noonu sunna malaika yi suñu borom sax diggi wuñ noonu diine yalla suñu borom sax mi wacce diine sa dégg maanaam gisewul non diine ji waaw ah, loolu boo delloo jitaay bi jàll yooyu am nañ ci leer lool kon leer seen leeral naa Seydina Abu Bakrin leer seen Seydina Omar seen Seydina Ousmane nag julli gi nga xam moom lay julli ci li nga xamante ni moom mooy ajuma nodd gu njëkk gi ñuy njëkk nodd loolu Seydina Ousmane moo ko ci sos ci diine mais bukk ci woon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu xamoon mooy yonente bi danaa ñëw ba egsi ci minbar bi kii nodd doo ko nodd ok boo ko defee yonte bi xutba ba pare ñu liqaam nag daal di julli waaw waaye maanaam nodd gu njëkk gi ñuy njëkk a def su ko defee boo ko déggee daal di xam ne kat ajjuma gi jot na su ko defee nga gaaw a mën a préparer sa bopp gaaw a mën a waaj ngir dem ci euh, jumaa ji julli ji nodd gu njëkk Seydina Ousmane moo ko ci sos yonent bi sallallahu alayhi wa dund na ba jugee fi kenn musuta def nodd googu Seydina Bakri ñëw na ba jàll kenn mësu koo def Seydina Omar ñëw na ba jàll kenn mësu koo def Seydina Ousmane moom dong moo ñëw daal di sos nodd njëkk googu ñuy nodd ci ajjuma maanaam daal di koy def ñëpp fekk si nañ ko te la ci gën a garaaw sax mooy Seydina Ousmane daf ko sosoon ca marché ba dafa wax ne bu ajjuma jotee bu xaaree ba ajjuma gi jot ñu nodd rek daal di julli ñenn ca marché ba duñ mën a gaaw préparé ñëw julli si kon nag buñ ajjuma gi bëgg a jot nañ gaaw nodd nodd koo xamante ni te buñ koy nodd nañ ko noddee ca marché ba tey gis nga Seydina Ousmane ko soon nodd gi ñu koy noddee ca biir marché ba dawuñ ko noddee ci biir jàkka ji te gis nga léegi sax ñu ngi koy noddee ci biir jàkka ji kon loolu Hisaam ibnu Malik am buur la woon moom moo tuxal nodd ga ca marché ba fa ko Seydina Ousmane defoon indi ko ci biir jàkka ji te ñoom ñi nga xam ñooy wax ne lépp lu yorante bi defut ku ko def def nga biddaa lii dey maanaam dëgg la Seydina Ousmane moo ko sos nodd gi waaye nag dañ ko daan noddee ci biir marché ba ngir waa marché bi li suñ mën a wax ne yaa ayyuhal lazina aamanu izaa nuudiya li salaati min yawmil jumaati fasaw ila zikrillahi wa darul bay'a buñ demee ca aju mu jotee dañuy dem ca biir ja marché ba nodd ci kaw su ko defee waa marché bi yëg ne kat ajuma gi jege si na ñu daal di bàyyi njaay mi bàyyi lépp daal di préparer ngir nag dem julli ci mu wax ne buñ bàyyee nag ba buñ noddul defuñu noonu kon ñu bëree bëri danañ raté ajuma gi nii waaw moo tax Seydina Ousmane son nodd gu njëkk googu noonu te ca ca marché bi dañ ko daan defee ñu ko defee ci ci biir jumaa yi waaye bi fi Seydina Ousmane jugee ñu dem ba ci jamono Hisham ibnu ma ibnu abd Hisham ibnu abdul malik xisaam ibnu abdul malik moom moo jëlee nodd ga ca marché ba fa ko Seydina Ousmane euh, defoon indi ko ñu koy defee ci biir jumaa ji te kon ñoom ñi ñu koy defee ci biir jumaa ji ñoom jàpp nañ ne Seydina Ousmane la ñuy roy fekk ñoom xisaam ibnu abdul malik moom lañ ci roy ndax dëgg la Seydina Ousmane moo ko solo mais ca ca marché ba la woon Hisaam ibnu Abdul Malik moo ko tuxalee ca marché ba fa ko Seydina Ousmane sosoon indi ko ñu koy defee ci biir jumaa ja te ñoom seen jumaa yi ñu ngi ci nodd nodd gu njëkk googu te ci biir jumaa ji lañ koy defee kon léegi ñoom roy nañ koo xamante ni nekkul yo loo xamante ni yonent bi def ko saxaaba yi defuñu ko waaye ab ab buur sax moo ko def ndax ni ñu koy defee ci kayfee bi ni ñu koy defee ci biir jumaa yi lolu sahaba yi defuñ ko non xamuñ ko non sax dawuñ ko defee noonu yonent bi sallallahu wasallam daw ko defé ibnu abdul malik ci jamono mom moko def ci biir jumaaji ji ñu ci biir jumaaji kon ñom ñu ngi roy hisab ibnu abdul malik ko xamanteni du won sax ab sahaba ab bur la won kon ñom roy nañ ko ci lo xamanteni yonte mus ko def sahaba mus ñu ko def kon daal daanaka leg leg fi nu daanaka ñom li ñu wax ni ñom duñ ko bayyi xel ta lolu yonte mus ko def ci jamono Seydina Abubakar ñëw na ba jàll mosu koo def Seydina Ousmane ñëw na ba jàll maam Seydina Ousmane moo maam Seydina Abubakar ñëw na ba jàll def ko Seydina Omar ñëw na ba jàll def ko Seydina Ousmane mu ñëw ci ak eh, jamonom daal di sos noonu dugoogu noonu te sosee ko ca marché ba ca marché ba dañ kaa def waaye léegi fi ne ñu ngi koy defee ci biir jumaa yi mais xisaam moo ko def ci moo ko saxal tuxalee ko ca marché ba ko indi ko ci biir jumaa ji te ñoom ñu ko ci roy kon na ñoom loolu ñuy def nag royuñ ci yonent bi royuñ ci kenn ci saxaaba yi ndax maanaam ka ko def sax dub saxaaba jamono tuuti saxaaba sa ab buur la te ñoom ñu ngi koy rey ci loolu maanaam te loolu fi mu toll nii boo demee ci Buxaari yi maanaam nettee na ko Ibnu Maaja tamit nettee na ko Tirmisi yi tamit nettee na ko waaw kay mu ngi noonu <coughs> ñu ñëw ci li nga xam mooy jamono yi nga xamante ni moom la Seydina Aliyun nga xam Seydina Ousmane jàll na ba ci Seydina Aliou fi mu toll nii Seydina Aliou karamallahu wajhahu li nga xamante mooy ci ay jamonoom liñ masaan a xam mooy julli ajuma dëkk bi moom benn jumaa rek moo fi am te ci benn jumaa rek gi moom ci rek moo benn jumaa rek amoon ci dëkk bi nga xamante ni ajjuma gi ñëpp moom ci benn jumaa ja lañ koy jullee ci jamono yi yonte bi sallallahu alayhi wasallam loolu lañ xamoon ci jamonoy Seydina Bakir loolu lañ xamoon ci jamonoy Seydina Omar loolu lañ xamoon ci jamonoy Seydina Ousmane loolu lañ xamoon ñu dem ba ci jamonoy Seydina Alioune ñu wax ko ne ko dëkk bi kat maanaam dafa am ay doxafaaw ay ñoo xam dañoo amul kàttan te mu ñu maanaam xam nga xam nga ajuma gi dañ ko daan jullee ci maanaam dëkk bi benn jàkkaar fi nekkoon benn jumaa bu ñu daan jullee ajuma niki noonu tamit julli ci ayit te korite tabaski benn fet la daan doon benn julli daawuñ beru fee ñee beru fee julli seen it ñee beru fee julli seen it ñee julli seen déedéet benn julli rek lañ daan def loolu moo xewoon ci jamonoy Seydina Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Abubakar loolu moo ci xewoon Seydina Omar loolu moo ci xewoon Seydina Osman loolu moo ci xewoon bu lu ne ma maanaam tamit jamono Yonent bi sallallahu alayhi amutoon ay doxafaaw déedéet amoon na ay doxafaaw ñu loot tax Yonent bi wax ne booy jiite ay nit nangay ngay bañ a yeexal julli ci ndax am na ci ñi ngay jiite ñoo xam ne ay doo faawlu am ñoo xam ne ñoom ñu feebar lañ am ñoo xamante ni maam nangam ki nangam kon xamoon na ko waaye taxut mu wax ne nañ toog ci biir dëkk bi jullee fi li nga xam mooy julli kayit gi julli kayit ca sunna la doon sunna ci jamono yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono Sayyidina Abu Bakrin Sayyidina Omar Sayyidina Usman loolu mooy julli kayit dañ ko daan defee ci àll ba dawuñ ko defee ci biir dëkk bi daan génn ba ci àll ba ñu defee ko fa te benn jullit daan doon waaye ci jamono Seydina Aliyun ibnu Abdu Seydina ko wax ne ko dëkk bi kat dafa am ñoo xamante ni mënuñoo dox ba ca àll ba egg ba fa ñuy jullee ñu dafa jullee dañoo bëggoon nag nga wutal kenn ci biir dëkk bi mu mu jiiti leen julli ki ayit gi su ko defee ñi mën a génn dem ba ca àll ba ñoom ñu génn dem foofu jullee fa xam nga kon kayifiye bi noonu ñu ko defee noonu nekkul na ko yonent bi daan defee te Seydina Omar Seydina Aliou ma leen a ne ah comme mënoo leen kon wàcc na leen waaye waxu leen dafa wuutal kenn ci dëkk bi. nga xam ñi nga xamante ne ay doomu faaw lañ amuñu kàttan maa dem ba ca àll ba fay jullee julli kenn gi mu wuutal leen kenn ci dëkk bi su ko defee ñu koy jullee ci biir dëkk bi ñi nga xam mën nañoo génn ñu dem ba ca àll ba ñi nga xam fañ kaayam jullee ñu jullee ko foofa kon léegi julli kenn gi nekk na ñaari julli. te julli gi it ca sunna lañ xamoon benn jull la daan doon benn fet rek dañ ko daan julli ñoom ñëpp te ci àll ba lañ kaan moo am ci jamono Seydina euh, yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak Seydina Abubakar Seydina Omar ci la ko xaaj def ko ay julli ñii mën a jullee fee ñii mën a dem fee jullee fa kon Seydina Aliou bu déggoon na lépp lu yonte bi sallallahu alayhi wasallam maam defutoon ku ko def rek sos nga ci diine kon moom loolu du ko def waaw kon leeral nañ Seydina Abubakar leeral ci Seydina Omar leeral ci ci Seydina Aliou kon kon dikk ci li nga xamante ni moom mooy li ci mujj mooy jël nañ ci abu daawuda mu jëlee ci ibnu omar radiallahu anhuma mu jëlee ci sayidna yonte bi sallallahu alayhi wa yonte bi sallallahu alayhi wa sallam li mu jàngale taaye gi li sax ci sunna tam jàngale ko mooy taaye gi ndax jëmmi taaye gi da ci am loo xamante ni ibnu omar moo ko ci dolli abdullah ibnu omar moom moo ko ci doole te moom ci woon dafa wax ne man maa ko ci dolli waaw na ko yonent bi jàllee dafa waxoon ne attaxiyaatu lillahi assalawaatu attayibaatu bi mu dee ba egg ci assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu goo wa noonu wa barakaatuhu googu noonu sayidna maanaam abdullahi ibn omar moom moo ko ci doole sayidna abdullahi ibn omar moo ko ci doole te dafa wax zittu fiiha wa barakaatuhu man maa ci dolli wa barakaatuhu waaye loolu dikkeewul noonu ca na ko yonent bi jàll bañ demee ci daal di wax ne ashhadu an la ilaha illa allah abdullahi no ba daal wax ne zittu fiiha waxdahu laa sharika lahu man maa ci doole tamit waxdahu la sharika lahu waaye bukk na ko yoon noonu yoon bi salaa salaam bi mu koy jàngal loolu bokk ci woon man maa ko ci doole waaw wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kon da gis ne jëmmi taaya ji xam nga ah diine day suñ borom moo ko taxawal moom waaye ñun gis nañ saxaaba bii ñëw moom sos ci diine loo xam ne ñun ñu ngi koy def fi mu toll bu ñuy taaye ba egg ci asalaamaaleyka ayyuhan nabi wa rahmatullahi danañ ci teg wa barakaatuhu te loolu maanaam Abdullahi ibn Omar moo ko ci dolli ci di ci ci taaya ji bokk ci woon bu ñu eggee ci ashadu an laa ilaha illallah maanaam daa ci teg waxdahu laa sharika lahu waxdahu laa sharika laa sharika lahu noonu Abdullahi ibn nee moom moo ko ci dolli kon dolli na ci ñaari yoon ci taaya ji te loolu saxaaba yi nga xam ñoo jamono tii ñoom ñëpp ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono Seydina Bakr ni Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali ñoom ñëpp teewul loolu lañ doon def doonte na maanaam Abdou Abdoulaye ibn Umar moom moo ci doole te wax ne man maa ko ci doole teew saxaaba yi ñoom doon nañ ko def moo ko ci doole mais ñoom bu ñu daan taayee daan nañ ko xaale kon amul kenn ku ko ci waxoon ne ne da ngaa ci diine lu ci bokkut da ngaa def lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam defutoon loolu mooy teg ci ne saxaaba yi dégguñu diine ne lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam defut rek ku ko def def nga biddaa def nga loo xamante ni bokkul ci diine soo dee dem sawar loolu ñoom dégguñ ko noonu. kon jamono ji lañ dikk ba ci ibnu taymiya maanaam mu saxal loolu ak kuréelam bi ànd ak ñoom kon mu ngi noonu xam kon indi nañ jamono yi nga xam ci la saxaaba yi doon dund niñ daan sosee ci diine ji danañ dikk ci jamonoy taabaayene yi tamit. ba ñu xam ne maanaam lii ñu bëgg sa saxal nii wax ne waa loo def rek ñu ne la yonte mosu koo def ah saxaaba yi mosuñu koo def kon li nga def biddaa la nangam ki nangam boo dee dem sawar nangam loolu maanaam moo saxul wax jooju sax mooy biddaa jëmmi wax jooju mooy lu yonente musta def rek ku ko def def nga biddaa jëmmi wax jooju loolu biddaa la ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam musta wax ci ak dundam ne lépp lu ma defut ku ko def def nga biddaa loolu yonente musu koo wax kon ñoom ji maanaam balaa ñoo atte nit ka la def ñoom li ñu wax sax nañ ko xool ndax yonent mos ko wax ndax sunna bokk na ci li bi sallallahu alayhi wasallam wax kon waxal ko li mu wax kon kon ñoom bàyyiwuñ kenn yu bëree bëri dañ koy dañ koy critiquer fi mu toll nii maanaam boo xoolee sax ba ci jug siyaare yonent bi sallallahu alayhi sax ñoom dañ koy xaraamal te loolu xarnu yu njëkk xarnu ñett xarnu yu njëkk amul kenn koo xamante ni mas naa weddi loolu ibnu taymiya rek moo ko mas a weddi siyaare yonent bi sallallahu alayhi tawasul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko weddi waaw ndax jàpp na ne yonent bi daal wala yaas billahi taala ñoom pas-pas yi ñu yor mooy comme yonent bi comme ñun ak ñoom rek a yem ñoom risaale bi rek lañ ko toppee ndax ñun sax dégg nañ koo xamante ni ñun ñoo ko déggal suñu bopp ci ñoom mu wax ne yonent bi ñun toppuñu ko jëm jëmm ji noonu toppuñu ko ñun risaale bi mooy lim ñu jottee rek lañ topp. nga xam ñun yonent bi dañ koo jàppee comme moom daal benn waay nii rek wala yasbillahi taala waaw nga xam ñoom daal lam leen wax rek la ñu topp mais jëmmam moom yonent bi ñoom lijjantuñ ko sax te lii mooy dëgg ñoom boo koy wax <laughs> maanaam da koy dégg seen wax ni man loolu dégg naa ko ko wax waaw doy wax rek kon danañ ci dikkaat ci ay yeneen i jataay mu gën a yaatu danañ dikk ci indi nañ ci jamono bi nga xam yonent bi sallallahu mu ngi dund dikk nañ ci jamono yi nga xam saxaaba yi ñu ngi fi nekkee bi saxaaba yi jàllee taabi'iin yi tamit danañ ci dikk niñ daan sosee ay mbir di ko dugal ci biir diine te mu bokk ca ba léegi ñu ngi koy def te ñoom sax ñu ngi koy def te wedduñ ko kon foofu lañ koy yemale waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu